bismillah ci ëttu yëglekaay yeeg yéenekaay yi def lu baax tv point com seen bokk seen xarit Cheikh Bay moo ñëw tey nag le mercredi 13 décembre ci atum 2023 nga xam ne moom a ne daal lañ ñoo ñëw ci terrain bi am fuñ ko fekkoon waaye ñoom it am nañ ko indi moom xale yooyu ki nga xam ne moom moo nekk ca bopp ba nekk ca bitim réew ñu naan ko Paris la France di Malick Diop moom Malick moomee mboolem loo xam ne daal ma nga nekk ci arc de triomphe di diwaan boobu nga xam ne moom moo di Paris la France lépp lu fa lëndëmoon daal mi leer nañ mi koy teg à temps ko wane fii ci réew mi nga xam ne moom lañ nekk ci groupe bi nga xam mooy loo ne rek site internet la ñu leer nañ ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñu nekk ne ci réew mi nga xam ne moom la ñu nekk ki nga xam ne moom moo jiite fii nga xam ne moom lañ nekk di Sénégal ki nga xam ne moom leen jiite moom moo di Abdoulaye Ndoye moom Abdoulaye ci àndal mi kuñ naan maam gañ ak ki nga xam ne moom moo ji sëñ Abdoulaat gone bu loxom setee mën a mag dañuy bàyyi loolu ne roseet daal di dem wutali diwaanu Thiès benn dëkk ñaari gaar ki nga xam ne moo leen fa toogal di seen correspondant di Bokar Si moom Golare Couture moom it toog foofu di def loo xam ne liggéey bu ama am solo la ñoom daal daraa leen ñorul lu dul daal course hippique suqaliku jëm ca ak lépp loo xam ne mi ngi doon lëndëm ci bopp nit ñoom xale yooyu ñu daat koy leeral at

ligoloo kër mbër gu bala ñaan moom grand Modou Lo moom na leen fa daal eh, gañe xeex bi xam ne moom la xeex ci ñi xam ne ñoom ñoo nekk ci zone boobu en tout moom gis nañ ne daal fas yi daal bari nañ fa ba àgg ci lool ñu bare bari yaakaaruñu woon ne fas yi bare nañ fa lool li waral lool nag ak ñi xam ne ñoom ñoo ko leeral di xale yi nga xam ne dañoo transparence di ay xale yu ndaw di groupe as 221 ñoo ñooy ñan mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoo ñooy ñan mooy ñi nga xam ne soo koy ñemeetuñoo toog ñoo ñooy ne groupe bras yi daal ñemeetuñoo def loo xam ne daal lu ñu xeebale ñoo ñooy ñan mooy ñi nga xam ne képp koo xam ne daal na ngaa toog tribune bi rek yaa ngi leen di xel defar ñan mooy ñi xam ne daal kenn ñemeetu la tax dawal bàyyi baraan yaa ngi leen di bàyyi xel ñoo ñooy ñan mooy soo ko bu ci amul entraînement sax même bu ne bi la say cër na da nga góorgóorlu ba doo toog ndax boo toogee ñoo ñooy ñan ak ñi nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi ci course bi yaa ngi dox rek yaa ngi leen di xel ndax jàpp nga nga ne seen caméra boobu ñuy woowee dërëm bi mën na laa bett caméra la moo tax daal course bi daal transparence lañ ci woote ak di visibilité bu mat sëkk ñi nga xam ne nag ñoom ñoo indi loolu daal moom moo di as 221 fii la ñu yemane ak as 221 bye bye bonne continuation à vous à vous Dakar